asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen nuyu bu baax di leen ziare ñu ñëwaat ak yéen ci la bis bi muy vingt-troisième nuit yi maanaam guddik ñaar fukkeel gi ak ñett ci weeru koor la tey mi ngi nekk ñeenti rakka bu ci nekk fatiha benn yoon iza jaa nasrullahi juróomi yoon qul huwallahu ahad juróomi yoon naafila vingt-troisième nuit yi guddik ñaar fukkeel gi ak ñett mi ngi nekk ñeenti rakka malaaka bu ci nekk faatiha benn yoon izaa jaa nasrullaahi juróomi yoon qul huwallaahu ahad juróomi yoon wax na ni képp ku ko def yenn la say baakaar yépp te dina la boole ñaari malaayika ñu lay bindal ay tiyaaba ba keroog at mi di ñëwaat te boo faatoo ci diggante bi itam di nga mel ni ku dee ci jihaat te di nga dékkawaale ak leer te booy jéggi siraat ëllëg yowmal xiyaam da ngay mel ni ak melax kon naafila yi ñu ngi koy jëlee ci téereb Sëriñ Saaliw Mbàkke bi ñu wooye Qurratul Ayn képp ku si bëgg yeneen i leeral description vidéo bi dina la defal lien telegram pour nga mën a am téere boobu ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal kooru jàmm jërë ngeen jëf